d'accord Cheikh euh, alors dañuy ñëw ci euh, corruption bi nga xamante ne évoqué na ko ci discours am euh, Pasan mhm. li ñëpp di ragal mooy actuellement mu jóg pour lutter contre la corruption ba mujj daal di def erreur yi nga xamante ne le mhm. président Macky Sall moom la ko mettroon bi muy soog a accéder au pouvoir irrégulation je je pense que daal li li gën a important mhm. il est entouré de de j'imagine de bonnes personne de bon gens. ñu mhm. xam fi ñu war a jaar ci li ma yaakaar. Mhm. et en principe c'est comme ça parce que ni ñu def ba agsi ci victoire bi ça veut dire qu'il y a de bonnes gens derrière. capables de de de li ñoo waxtaane ñoom jiitu nañu ci amaana. Mhm. li li li li ma jàpp ni moo moo moo c'est quelque chose qui me rassure. j'entends des gens qui disent il faut ñu impunité ñu génn ko ci réew mi et cetera il y eu une amnistie. Mm. nan nga kaa def. justement. réviser nan nga kaa def je pense li gën a important. Mm-hmm. dalal xel xam nga li dalal xel. fexe ba nit ñi du tic au tac ñu gis ne am na une mesure bu ñu jël rek am na lu changé loolu day apaiser même ki mer sax dina dégg nekk benn niveau boo xam ni mun na bañ a fàtte mais dina egg foo foo xam ne danaan. ah adduna amul solo est ce que jarati na ka. est ce jarati na mais loolu mooy li gën a difficile mais mais mooy li gën a important. ban mesure wàññi dund bi bu baax ba ñëpp yëg ko ba ñëpp yëg ni dund bi changé na dafa am influence positive ci comportement yi ci attitude yi ci ni ñoo mhm. benn ku amoon cent mille francs ñaari fan ñett mu jeex te mu jafe lool ci yow Basiiru def ci kàttanu suñu borom ba cent mille yi mel ni deux cent mille boo kaa wax nag nit ñi dañ la naan non non non euh, les cours mondiaux ak fi dëkk bi toll yooyu il faut même pas y penser. ne promettez rien aux gens on peut non il est possible les quatre vingt cinq milliards yi nga xam ne moo doon les charges de la présidence de la République du Sénégal. Mm-hmm. au temps de Wade cinquante deux milliards la woon. Mm-hmm. président Macky Sall ñëw affaire bi yéeg ba niveau boobu. te 77 la woon. benn moment waaw léegi tey jii nii. il y a des dépenses dispendieuses moom bu jëlee mesure ci loolu rek day am luy soppeeku ci saa si. loolu am fu mu institution yi ñu jàppoon ne amul njëriñ. HCCTO ah, ah. diggante Sénat ak conseil économique social ak assemblée bon assemblée. mais la ca des parce que am na am na lu bëri loo xam ni euh, ça a été dénoncé en amont. Hmm. c' est que dina ci dina ci am naa yaakaar dina ci taxaw. loolu jàpp naa dafa am ay mesures yoo xam ne gis réconciliation am na acte yoo xam ne boo ko posé daf kaa yombal. day tax nit ñi parce que nit bu ko dara occupé maanaam nit warul oisif warul dépaysé. su toogee di dund mettitam rek la ko lañ ko defoon mu metti mu toog di ko ressasser mu nekkaat ci moom c'est parce que amul lu mu def. wala dundam demeewul na mu war a demee. gis nga bu dundam tegoon ni mu war a demee moo di ne xëy na war na dem fenn am na moyen def ko xëy na war na lekk naan am na moyen def ko xëy na war na fay fay facture école am këram ak mën na ko def. loolu day tax nit tooñ bi nga ko tooñoon mu mu nekk ci mouvance su perspective perspective maanaam nit mu bañ mu dem nii moo gën mu dellu gannaaw ah. réconciliation bi c'est ça faire de sort que dëkk bi vécu bi changé vécu bi di changé progressivement nit ñi di waxtaan mm-hmm. diw diw diw APR la nekk ak saaga yi kii Pastef la nekk ñoo bokk koñ bi ñaari veillu élection yi xaw nañu xeex mm-hmm. am na fu ñu eggoon mais kasi nekk si ñoom bu sa dund amélioré woo dootoo tal xeex ak xuloo ngay ngay gis ne que ah non non man il va falloir que ma ma dem jënd nangam parce que le social par hmm. exemple l'habitat social HLM SICAP hmm. bu njëkk ñoo daan tax nit ñi di am kër hmm. loolu dem na ba presque naax saay nga delloo si ko ñee nga génne woon Anne Mariste injustement HLM génne leen fa ne daf koy defaraat bu bu paree ñu ñëwaat boobu ba tey ay at a ngi nii mooy cité Lyon yi. Lyon yi dara fouraas. Mhm. yooyu noonu gis nga ces disparités là. nguur bu bees nguur bu bees. loolu lay régler dette intérieure maanaam de petites chose yoo xam ni à l'interne tout de suite nit ñi nit ñi suqaliku ku état bi amee loon cinquante millions nga jot ci. ces détails la font la différence parce que ki nga xam ne jot na cinquante millions sonal nañ ko jàppoon nañ ko ci kaso bi tooñ nañ ko mais jot na cinquante millions yu ko état bi amee fay nañ ko. kooku tu penses que dina fa toogaat naan waaw je réclame justice perspective lay gis. Mhm. danaan faw ma tabax nangam yow mooy ni nañ tegee ne amnistie bi ñu tàmbali jublu ci indemnisation. no c'est-à-dire que aujourd'hui aujourd'hui kilifa bi mu ngee door a toog falu na. Hmm. donc reddition de compte day am naturellement faw mu xool li xew. Ah. nu mu demee mais xool boobu. l'erreur de de du président Macky Sall autant mooy xool boobu ak coow li nit ñi dañ kaa yëg. traque de biens mal ak mm-hmm. alors qu'au temps de au temps de Wade amoon na te yëgunu ko la différence c'est ça beneen bi si des képp koo xam ne jël nga alal ju dul jeex moomoo ko teg ko ndànk bu nu kenn dégg xulil saay wuy ma te bu boobaa loolu suy am c'est pas le pouvoir en place mooy ñëw ne la delloo ak déedéet mm-hmm. y a des DJ. yoo xam ne ñooy def seen liggéey. mais au nom de la transparence dañ bëgg non c'est-à-dire que au nom de la transparence dafa am ay scandale yu mag yu fi am. yooyu justice mën na ko lijjanti justice la maanaam na na na. après di informer et c'est à partir de là c'est à partir de là comme c'était annoncé. conseil supérieur de la magistrature jàpp naa ni boor na bokk ci les premières mesures. Mm. ñu ne Bassirou Diomaye Faye. tekki na ko ndoom bokkatul ci conseil supérieur de la magistrature. Mhm. conseil boobu ñu ubbi ko à la société civile ak ñeneen ak ñeneen magistrats yi di tànn seen procureur général. Mhm. juge de libertés am. détention provisoire yi wàññi wàññeeku. mandat de mandat de dépôt yi a gaaw dossier yi fi nekk ñu ñu téye les 4000 détenus rëbës. foofu ñuy tànqali ko. Ah. nga fexe ba ñenn ñi ñu régler seen ay dossiers maanaam affaire bi fonctionné gis nga fonctionnement boobu su amee normal dara du metti cour de comptes. les services dédiés dont tu parles. ñoom ñu jëlee leen ca présidence. non nga ñëpp ngay dégager. Ah. ku si nekk am indépendance am ak liberté am d'action. loolu ay mesures de réconciliation la day tax. rapport yi bu génnee bu mu ñëw ci moom direct. nañ ko jëbbal yoon mooy gérer moom day apprécier à la juste valeur mu am détachement le président Macky Sall s'est épuisé parce que dafa concentré lépp ci moom dem ba mujj gi saa voilà aujourd'hui ki kilifa bi li moo def moo di dalal xel dalal xel bi gën a wóor mooy bàyyi nit ñi ka si nekk la mu war a gérer mu gérer ka moom mu nekk sur l'essentiel tiim lépp bu nabu doxalul rek mën a ko nabu il va falloir qu'on corrige mu corriger et ainsi de suite loolu incidence bi day dem ci population yi dañ kaa yëg mm-hmm. bu nu ko yëgee les gens sont tranquilles day influer ba de ba egg xam nga fan mm. day dem ba ci circulation bi nga xam ne état bi daf ko ameloon cent millions bu ko ko état bi fayee kooku journée boobu buy bu dajeeg Pape Ousmane saa yi bëgg ko crochet wala double kii mu ne ko waaye saa yi yow looy def nii daal di carré parce que xelam dal na xool leen circulation bi les gens sont nerveux tendus parce que nguur bi fi nekkoon moo ñu transmettre onde bu bon moo tax yaakaar bi foor ci ci Bassirou comme c'est la bonne nouvelle mm-hmm. nañ ñaan yàlla mu mu sincèrement mu réussir parce que s'il réussit et il a une opportunité il a okay. quatre gros événements face à lui bi mu faloo hmm. les JO de 2024 mhm. tey jii nii Bassirou nouvellement élu doit s'arranger comme il aime le sport à ce que tous les Sénégalais am na athlète bu ñu fi doon wax bu am soxla vingt trois millions pour dem ci jeux yi préparé hmm. wu tous ces gens là de l'athlétisme des sports disciplines yeneen yi ñu régler avec le ministère bi fi nekk xool en termes de continuité d'État ak la en attendant muy monter son son gouvernement ñu ne ah il va falloir qu'on règle ça les JO de 2024 les JO de Dakar 2000 bii bii bii am nii en en en bi ñu annoncé en 2026 mm-hmm. la CAN 2025 la CAN 2025 le foot qui intéresse les Sénégalais la coupe du monde en 2026 mm-hmm. maanaam ñeenti événement yoo xam ni ci sa premier mandat nga nekk koo xam ni nekkuloo ku ñu fal par défaut en terme de way nit ñi bugguñu ko woon mais moo fi sës dañ la fal parce que dañu ne yow ah sa mouvement sa mouvance sa mouvement sa projet la ñu adopté que que symbologie di Ousmane nee nañu voté la ñëpp d'accord ñi ci ëpp loolu opportunité mënu ko gën a rëy pour un jeune sportif da ngay fexe loolu nekk un plus le foot national le championnat national xaalis ba bare bare bare bare la la jeunesse peut s'y ñu liggéey ci chaque week dëkk bi am ambiance bu baax ñuy dem stade di seetaani match sénégalais yi retrouver loolu si tu résolves le problème du social li jënti ndox mi sport bi ah. les gens vont respirer réconciliation gënul gaawloo su ko defee ñi mer ñëpp mm. ak seen mer ak seen métit ak yëpp tension bi di wàcc mm-hmm. foofu la mbir mi nekk en attendant ah. d'accord balaa ngay ñëw ci relation diplomatique yi faaw ñu nag ci ban profil lañu war a teg ci gouvernement bi pour mu mën a tàmbali. Euh, liggéey bi de euh, euh, mbëbët yi mu am mu mën a sotti ci réew mooy ne ñu ngi bàyyee xel ci prochain gouvernement foofu it du doon lu yomb mm-hmm. ouverture ñoom la ñu wax co